tuuti tuuti ci communiqué boo xam ne dañ koo génnee jagleele ko waa kër gi waaye bind ci sama tur nag mhm. muy CNRA ak Babacar Diagne mhm. Babacar Diagne li ma a xamal lu ndaw ke la mhm. mooy ligne éditoriale bi du changé booy benn ñaar kilifa la mais Babacar dafa mel ni yenn saa yi duy bàyyi xel njabootam ki parce que yow mënoo nekk cim réew président bu ñëw ñu la yow lañ dénk lépp lu jëm ci wàllum sale boulot kër jaañ ay mbokkam ñoo ko war a yedd dafa baaba kër jaañ li sénégalais yi xamul mooy man mii di wax ak yéen te mu singili ma man sama wóllëre baay la te ñu baree bari xamuñu ko mënoo bu ñu weetee nag nga ne ma sama sëriñ ñu lay defloo yenn yoo xam ne yu defuwul la mhm. te nga ne ma yow sa bàyyi man maa la ko gën a xam bu ñu waxee nga naan ay ci loi laay dox doxoo ci loi Babacar Diagne tey li waroon a nekk meram mooy alaaji élection yi jeex. Mhm. ma ne sénégalais yi bàyyi bàyyi naxee mbaay utiliser naa leen ba falu buur dem naa sama yoon. Mhm. mu ne kii li mu def. bàyyi micro. xam nga li ma la. Mhm. mais Babacar Diagne bu dee journaliste la man pour man lii tiitër la war a nekk ci moom. dëgg loolu dëgg. waaye toog naa day viole ay article cent nangam réglementation dugg na fi génn bi. Hmm. te waa ji mosul changé. Hmm. ba mu ko xamee Oxygène RFM ba Zik FM nii la mës a mel. kër hmm. Diagne fii lu ñu ñëw ci élection locale yi mu bind communiqué. jox ko rédaction yi alaaji sama kër gii laay njëkkee. Mame Mbaye Ndiaye mi ngi woon ci liste yi. toog na fi ba élection yi jàll. muy campagne bokk gëm sa bopp ba élection yi jeex. Mame Mbaye kenn jox ko leetar. Mhm. Babacar ak ay comploteur am. ay mhm. dara ñoo moo ñoo ay dara mhm. ñoo moo leen intéressé. Seyna Omar Ba Walfadjri. présentateur la. moo leen di présenté le treize heures. ñu nekk ndoon Oxygène Diso FM mi ngi Walfadjri. te dellis la woon majoritaire Kër Massar. dégg nga loolu. ba campagne bi jeex. man nag. nga bindal ma lettre ne Ameth na jóge ci micro yi bu mu fa toog parce que xëj na moom li muy def yow arrangé wu la. Mm. métier bii nag duñ ko bàyyi politique du métier. Mm, mm. wallaahi. dégg nga loolu. Mm-hmm. li doon bon mooy Ameth Fallou ne bàyyi naa sama métier parce que la may fayee ko fee wala avantage ya fa ne moo ëpp li may am fii daw naa toppi teraanga ja. Mm-hmm. métier bi duñ ko baax. benn ñaar ligne éditoriale bi du changé. dëgg dégg nga loolu du ci yàq dara. ah way ñun tollootuñ nag. Mhm. fu ñuy wutee ay ay teraanga ci métier bi waaye passion. moo ñu fi baax. Mhm. c'est sa métier la. sama métier la. Babacar Diagne na dimbali nit ñi bañ a nekk un comploteur. Mhm. kilifa la dañ naan wax di ko mbalak nii chaque jour Babacar Diagne lii Babacar Diagne lee xam nga li ma la. mais mbir mi nag day bëgg a sérieux nga singili benn doomu aadama. na ngaang ma wàcc. ba mu ne nañ ko xañ micro yi. Mhm. dama ne sant yàlla ñaari weer. dégg nga. Mhm. mu ngi bàyyi ay journaliste ci rédaction yi kenn mise en demeure leen kenn waxu leen dara. Mhm. ba ci fii ci biir kër gi laa la wax. ñi ma bindal lettre ne ma demal toog ca booba. ay journaliste ngi ci kër gi bokk ci liste te bindaluñ leen lettre. xam nga li ma la. ba feneen amee nag ba tey kenn sonnatul. comprendre li ma la wax Babacar Diagne na réglé moo ko sénéra bu dee lu neex Macky moo tax muy xër-xëri nii na dem toog mhm. parce que Macky Sall mënul fexe muus ba ay Aïdara changé ligne éditoriale am mënul ne am na journaliste si opté jàppale Macky mhm. man jàppalewu ma Macky na ma Macky gisee woon mhm. na ma Macky gisee woon ba soppoon ma ba mu nekkee ci opposition Ahmed boobu moo fi nekk ba tey. Mhm. te du changer une virgule. Mhm. te Macky moo ma daan xelal naan ma soit toujours di côté di peuple. Mhm. bis boo demee ba teraanga jaral la nga far ci nguur mooy dee nga. dee nga moom Macky ci boppam. ñi ko gën a xam ci réew mi man dama cee bokk man dama daan militer UJTL boobu maa ngi lycée Limamoulaye ak CM Canada ci parti yi la ñu xamante Macky xam na ma xam nga li ma la. ñu nekk ñu ñooñu nga xam ni. da ngay yooyoo safoo yàpp safoo jën kenn mësul am ci mën dut ne Ahmed mii est-ce que du dil ak Alioune Sall wala Ahmed Sall lay liggéeyal su ma ànd yow ñëpp dañuy xam ne dama ànd ak yow su ma àndul ak yow ñëpp xam ne ànduñoo ak yow Macky nag fukki weer ak juróom-ñett moo ko fi dese troisième mandat réew mi duñ ko d'accord bu dee loolu lay bañ dégg na pare takk ay bagaasam dem dégg nga loolu. Mm-hmm. Babacar Diagne ñaata journaliste ñoom ñoo fi nekk lay nekk ci rédaction yi. yaa xam mbay man sama xarit la ma jàmbal jaañ bokk na ci ñoo xam ne man dama leen di woo. parce que dama leen nangul seen position. Ah ñoom dañu wane ne ñun Macky la ñu àndal te nëbbatuñ xam nga lan moo bon alaaj sañ nañu ko xam nga lan moo bon alaaj tappale safoo yàpp safoo jën mm-hmm. ma jàmbal nag courage la am ak lu ko nit mën a attaqué mm-hmm. yaa xam dafa courage la am ak lu ko waay mën a mm-hmm. Abdou Latif Coulibaly waa ji faal te mu nekk présidence Alioune Fall. Alioune Fall Souleymane Jules Diop. Mhm. mais taskatu xabaar lañ wane nañ ñin Macky lañ àndal. dégg muy seen sañ-sañ. mu nommé leen ay directeur yaa xam day bind ba tey ay édito en tant que DG wu. Soleil. Mhm. lu tax Babacar wax ko ne ko tëddeel njaaxaanaay. Racine Talla du directeur u RTS. ok Macky Sall ñu jël jël tele bi jox ko ko mu moom ko ne benn opposition du fa demati. Sénéral du ko bindal loolu. waaye yow nga ne ma siiñ fang rek Ameth moom bu fi jógeewul ñun duñ ne ci jàmm fexe nga ba jëlee ma fi yaakaar ne looloo may xaj nguur yàlla def ma buuru dëkk ba. nga dellu soit à la charge ni député yi bu mu ko fi fekk day violé violé wuñ dara. yeneen violeurs yi mag yi caxat caxatee loi yi mais nañ dimbali nit ñi. soppi article yi. soppi article yi. bëgg cee sanctionné ku la neex. voilà patron de presse bu ci matadi nag. ba topp leen ba daanu sa pièce ba ñàkk say élément clé kooku yaa xam man moom du ma Babacar Diagne tuuti na ci soppi ma Macky Sall li moo doon président de la république yëpp boo waxee danaan diw dafa tuuti dafa dëgër bopp ñi ma nekkal man alaaji hmm. ñu dëkk Guédiawaye en commençant par Gakou Malick Gakou ak gars yëpp la coalition ñoom ils me xam nañ ni kii nekkul yooyu Babacar na dem toog waaye te na yërëm tamit nag vraiment nag ay doomam mais da ngay xëy matin ba soir ñu jàpp sa baay di ko saaga amoo jom amoo nangam tu es là pour faire le sale boulot ah on noonu dëjër bisimilah continuer la